les gens venaient. Moi, j'avais autre solution. Hein. J'avais autre solution. Maintenant, je trouve le, euh, le, le commandant. Vous me demandez, bon, écoutez, je viens d'être affecté là, je, je n'ai pas reçu ces, messages, ces informations. Vous me ah, comment ça Vous n'avez pas fait une passation, euh, euh, une passation de service Vous me si, mais je ne l'ai pas. Je me dis, d'accord, mais je vais Maintenant, dans gens se maquillent, puisque je suis à quelques encore plus. Je vais une copie. Je vais une copie. Je vais une copie. Je vais une copie. Je ne ko pas ñun ñun waa cité enseignant mën nañ ko sur suñu bopp parce que moi je n'attends personne sama sécurité kër sama sécurité que du ma ko weccee ak dara dara dara ne ko pas bu si les camions si les romans, ne quittent pas les lieux moi je les ferai quitter là parce que je vais mobiliser toute la jeunesse toute la population de la cité enseignante et ils vont quitter c'est depuis parce que des procédures ont été respectées, des correspondances ont été écrites, adressées aux personnes qu'il faut, aux autorités qu'il faut, mais puisque les leaders de la politique de l'autisme je ne sais pas quoi votre avis est civil. donc euh, disons-nous que euh, le profit fi nous sommes responsables que nous n'avons pas pas donc je demande à tout le monde connecte.

comme on dit certains c'est un carrefour le rond-point là donc nous ñi nga nous dañuy dugg nous ci biir mais quoi ce bordel là excusez-moi euh, ni may Nous nous, ñun donc marie lancé un appel dimanche prochain Inch'Allah, samedi on vous tiendra informé dites-vous que on va refaire une plus grande mobilisation de s'il si jamais réussi il y a c'est parce que tout nekk ku fi def nga li wax une sensibilisation je lance un appel particulier aux jeunes de Kermassa, aux jeunes de la cité des enseignants appel lui a ko mais non, le lundi, di interpeller directement je pense qu'à partir de ce soir demain et toute la semaine du mois, on doit faire nos porte à porte dugg chaque kër wax que tout le monde se mobilise Notre notre quartier les 144 quartiers def la même chose bu dimanche on obtiendra bien de cause merci beaucoup. population populations de population qui nous un au maire de la commune de pour qu'il écoute ces populations pour qu'il veille à la sécurité des populations, pour qu'il permette à ces populations de vivre convenablement, pour qu'il permette aux écoles, aux banques, aux instituts qui sont dans la localité et qui contribuent à la formation, à l'enseignement, au développement de la localité, qui veille à la sécurité. Parce que ça, c'est son ressort. Man, démarche administrative, personnellement, il faut entamer, je suis allé à la mairie, je ne l'ai pas trouvé. J'ai écrit à la mairie, juste là, on m'a répondu j'ai écrit à la gendarmerie j'ai eu la réponse non réagi aménagé au moins j'ai écrit au sous-préfet à ma réponse mais non. Ben Il ben tu vas poser des questions mais comment tu es que tu un travail, travaux ñu la a sax nit ñi nan lañ de temps donc ça normalement une personne réfléchit. am na loo xam ne war ko def combat bi nag seen combat bi suñu combat la te di ñaan ñu si jëm tamit merci. moo taxaw ci chantier bi boobu indi ciment birig ak di ko tabax te amul dara lu fi cadre lu dul ay jaaykatu portable te na lu ñax ñun suñu tali ay oto ko wër te Moustapha Mbène ko def taabal marché bi comme am na ko ko signalé léegi nekkatul marché parce que marché bi ci suñu kër tey da ngay ubbi sa buntu kër wàcc di génn fekk ñu def ay toilettes sa buntu kër ak ay saw man ci weeru koor laa nekk dara jarul ma fenn locataire yi ñoo woon yaa obligé chaque fois di defal ay toilettes nit te loolu du dëgg du yoon Kër Massar amatuñu trottoir amuñu fu ñu gaar sa bu jeexee nga war koo sànni ci ko sànni ko nga am malade tout ma yow bari di génn àdduna ma di ko yóbbu hôpital femme di ko indi publiquement laay taxaw ci biir mbedd ñëpp di ma xool ma ko dugal di ko génnee pourquoi parce que amuñu dund kër amuñu ay mbedd Moustapha Mbengue occupé na lépp Kër Massar il est invivable kenn mënatu fi dund ñuy ñaan yàlla nag autorité yi dañ leen di ñaan parce que dem nañ gis suñu préfet bind ko suñu lettre def ampliation préfet le gouverneur le ministre de l' intérieur le ministre de l' environnement l' urbanisme cadre de vie la ñu soxla ñu dëkk ëppalewuñu dara gënuñu ñoo rafet lan la ñu dàqalee cadre de Kër Massar ay xar dëkk ñu ay nit am importance foofu yeewoo suñu yaayee suñu papa yi dañoo retraité bu gën noppal amuñu suñu noppaloo ñëpp feebar nañ kër goo fa proche nit fa as na nit fa dara waroon ko ndax saxaaru oto yi mooy benn gox nga def fa sept garage nañu ut garage case oto yi jël marché bi yóbbu ko ci biir marché bi yaatal trottoir bi boulevard bi il fait cinquante fee c'est inaccessible ngeen jëndoon loolu laa si borom. salaamaaleykum wa rahmatulah donc maa ngi nuyu ñëpp ñoo xam ne tey daje nañ fi man maa ngi tudd docteur Djibi Sow di pharmacien nekk fac médecine ak hôpital Dantec nekk koo xam ne. Kër Massar bii la juddoo fii la yaroo fii la màggee fii laa ñaan yàlla ñàkkee sama bakkan incha allah lan la yéen léegi lu ma amoon lu may wax lenn la Kër Massar soo xoolee Sénégal njaay lépp bokk na commune yu gën a pop peuplé par ak nombre d'habitants yu fi ñeew te ñi Kër Massar soo fi duggee en tant que doomu Kër Massar su dee taxi nga jël mun na wàcc si foire bi ku nekk si Kër Massar te loolu nag du état kese. mais parce que dañoo am kilifa boo xam ne matul kilifa dañ ko wax te dee boo xam ne ay seetaan mars la xam mais du yore mairie tey jii ndaw yu fi nekk bëri ay initiative ndaw yu fi nekk ñu mën mbir bëri nañ ci mais tey bi maire bi dafay tëdd di nelaw di yeewu amul leneen lu mu def ko masaal tey jii nag ndaw ñi lay waxal ndaw ñi ñun ñoo war a yeewu booloo dajaloo fokk ci loo xam ne ñoo ko moom fexe ba yi nekk fi ñu jëlee ko fi teg fi koo xam ne mën na ko bu may daalalee nag moom mooy nañu xam ne Kër Massar na nekk département te balaa mooy nekk département il faut ma nekk commune bi dëgër te lu may dëgër loo nag ay bâtiment ak ay tali ñu ñuy naxee déedéet ay nit ñoo koy dëgër loo donc maa ngi ñaan ñëpp ñu jàpp ñu xam ne sël Kër Massar suñu diwaan la te ñoo ko war a defar jaaraama. bisimilah.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 au jour le jour dafa métti trop métti na ci ku ko wax métti na ci ku ko waxul correspondance yi dañ ko épuisé jaar nañ fépp fi ñu mën a jaar pour am gain de cause mais rien n'est fait xoddeeku nag balaa ngaa lakkale loolu la olof bi wax dañoo def lu nekk rek pour saafara situation bii yi nga xam moo fi am boo doon xoolee fi ñu taxaw nii nu mu setee ak boo jegee tali fee ngi mel ni fii ma Europe mi ngi mel ni fii mooy Afrique ndax saltewaay ndax occupation illégale ndax occupation anarchique te loolu lépp benn nit moom moo ko waral wax nañ ak moom ci njëkk ak teraanga jox nañ ko respect bu mat def nañ ak moom lépp loolu a xalaat rek pour mu indi ko ci dialogue mais ça tombe toujours dans l'oreille d'un sourd léegi nag on doit passer à la vitesse supérieure ñëpp di bëgg ñëpp li may tëjee mooy chaque fois que manifestation mel ni amee ay mbër la fi indi ñu ñëw di jàmbaarloo ak waa Kër Massar te loolu ñu ko nangu ñenn ñaa ngi fi gën a fekk toog ku leen ak wala Kaana Mourad fii ñoo ko moom te ñu dellu ñu moom par AOP asalaamaaleykum. ANACIM bi je crois que pour lépp ci Kër Massar. tey bu ñu jëlee exemple garage combien de garage y a alors que Kër Massar engrais bi dafa am garage boo xam ne c'est dédié à toutes les voitures si je ne me trompe bu dul loolu rek ngeen demal ngeen ngeen ngootu noonu. tey boo xoolee booy dem yoonu Jaxaay ñu ne la ay garage lañ bokk yoonu Jaxaay nga ñëw fii tout près ci wetu marché même chose loolu nag dama ne. c'est la mairie qui devait l'organiser comme mairie bi def ko nag dama ne nit ñi nga xam ne ñoo yeewoo Kër Massar ñoo ko war a xeex te seule la lutte libère kon yi dama ne nañu booloo muy Cité Aïnou Mady di waa Mérina Kelle di waa Cité extension di waa Darou Moukhty ñëpp lañ war a woo joindre leen ci xeex bi pour que mu mun a am gain de cause loolu la ñaan ñëpp kon du ma après damay cédé sama parole bi sama rakk bi mu def quelques témoignages parce que à te li ko waral mooy tegg bi bi def ci biir kon bi xale bi génn ko ko fii ko te gis nga mu jur fenn on a écrit il y a pas eu de réponse et malheureusement c'est ce qu'on vit à Kër donc nañ jàppante te xam ne collectif bi dafa war a continuer warta weesu fii ñëpp lañ war a woo ñu jàpp ci jàpp combien de quartier au Kër Massar kon ñëpp ñëw ñu xeex pour que au moins suñu cadre ko concerne donc maa ngi leen di gërëm di leen jéego bu baax. bi amul lu ñu jooyee mais bu gisee bu ñu ñu taxaw dañ ma génn saa benn côté ma génnee programme am mbir mi ñu juddoo ak ah, quelques années ñu juddoo ñu nekkee bi ñu juddoo rek am cinq personnes yu ñu ay jaasi ay paaka.

lu nekk ñu ngi ko fay def bu ñu paree suñu koñ ñuy traversé léegi nag quartier bi ñu fa nekk ñëpp sont menacés te tey jii lu ñuy xeex nii pour garage jëriñu ñëpp la parce que bu yoon bi xatee nit ñi wàcc fële di dox Kër Massar Carrefour la am na ñu dëkk ba Tivaouane Peulh ñu dëkk ba Jaxaay ñu dëkk ba Malika jëm jëm ci kaw xam nga lu xew ci forêt bi fii sama papa mu fi dëkk depuis 91 juddoo wu ma fi waaye fii laa màggee ñi fi taxaw ñëpp ñi ma fi xamul wala ñi ma fi xàmmeewu bëriwul kon tey kenn gënuñu légitime ci xeex te tamit message may lancé mooy ñi nga xamante ni ñoo ma dëkk fii tey ku ci toog sa kër ngay yaakaar ni yow yaa gën ñi fi taxaw si naaj bu tàng bii gars yi gënuñu leen de bu ñu jàppee dañoo am liggéey bu gën seen bos ba waral ñu toog seen kër ñu ngi nax seen bopp parce que tey xeex bi seen xeex la bu ñu amee liggéey bu baax mën ko liggéey wàcc ñëw ci dëkk boo xamante ni mën nañ fa noppal ñoom ñoo ko war parce que tey lii dafa ñaaw waral nañ ëpp lii man message boobu laay lancer population war nañu ëpp lii sama morom yi ñu gën fi taxaw ñu organiser affaire bi ñëpp ay liggéey kenn taxawaalu man dama bàyyi sama liggéey pendant 3 jours je suis réalisateur damay liggéey ñu may fay dama ko bàyyi pendant 3 jours li ma am ñëpp ma def ko fii. kon tey képp ku ñu mag wala ku nekk suñu morom da nga war a ñëw jàpp ci bi xeex bi sa la waaye toog sa kër que dama yor sa oto sa salaire dafa baax ci te prendre tey Je m'appelle euh, Florian Diatta, je suis le représentant du curé ici aujourd'hui. En même temps, euh, représentant de l'association One Sunyukov en tant que président de cette association. Aujourd'hui, on est là pour faire cette mobilisation cette dénoncer cette occupation anarchique de ces trottoirs. Concernant l'église Saint-François d'Assise, le curé m'a envoyé dénoncer cela. Parce qu'il n'est pas question qu'on ait une église et tout autour de cette église-là, qu'il y ait des marchands qui nous empêchent de vivre notre foi, de faire nos homélies, de faire nos messes. Et c'est totalement des choses à déplorer. Dans un pays les lieux de culte ne sont pas protégés. Surtout ici à Kermassar, concernant l'église Saint-François d'Assise de Kermassar. Elle n'est pas du tout protégée. Et là, on interprète le, maire de Kermassar. Parce que c'est lui le premier magistrat de Kermassar. Il n'est pas question que nous, en tant que catholiques, d'ailleurs, c'est un musulman qui l'a dit, il dit ceci. Si c'était une mosquée, on n'allait pas accepter qu'il y ait tout alentour qui est, tout alentour de, de cette mosquée, qui est, comment dire, des marchands qui vendent. Et quand on fait nous des messes, c'est déplorable qu'on entende certains chants. Et c'est vraiment, ça touche notre foi. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, en tant que catholique, on ne va plus se laisser faire. Ah mais non, on ne va plus se laisser faire. Aujourd'hui, on va faire de telle sorte que ces marchands-là qui plus. et qu'on puisse peut-être le maire pourra aller trouver un autre lieu. Mais nous, en tant que catholiques, on va, ne va pas se laisser faire, on va se lever afin que ces marchands-là puissent plus. parce que ça touche notre foi. Autre chose, on a entendu dire que l'espace qui nous restait là, parce que l'église est impactée concernant l'autopont. L'espace qui, reste, on avait envisagé en tant que euh, membre du conseil pastoral paroissial de faire, comment dirais des cantines jusqu'à N plus 2 pour ne pas que le, bruit des, voitures puisse impacter nos prières. Mais on a entendu que le maire avec son staff ont de l'œil sur cet espace-là. Et nous, nous lui lançons un appel pour lui dire, il n'est pas question qu'il touche un seul iota de cet espace-là. Parce que soit il va passer sous nos corps. Ça, c'est un appel qu'on lui lance il faut que ça cesse. Parce que depuis Kermassa et Kermassa, depuis l'église Saint-François d'Assise là, nous on ne reçoit pas de subventions venant de la mairie. Et c'est des choses à déplorer. Concernant les lieux de culte, les lieux de culte ont des subventions chaque année, mais l'église ne reçoit pas de subventions. Mais on fait partie de Kermassa, vrai ou faux C'est la question qu'on se demande. Concernant euh, comment cette, Covid, cette pandémie, on a donné des dons, on peut pas tout. Mais l'église, ils se permettent de donner à l'église un seul carton. sauf